bàyyi Diomaye mu jiite ci jàmm mu nekk président parce que déggugu sentiraguñu Diomaye nekk président il s'adresse pas à sa nation même s'il s'adresse à sa nation c'est avec beaucoup de difficultés déjà euh, na ko jox gëddam respecter protocole bi parce que nit boo ko jàppalee ba mu falu da nga koy da nga koy jox gëddam boo leen wéetee nag sa booy la mais bu ñëwee devant les Sénégalais def nous mu ce président on a parlé mais est pas safe aussi on a l'habitude Sénégal au fait ñun nous bëgg il peut quitter pas hein. Mm-hmm. mais tout le quitter ko rek lay mm-hmm. Mm-hmm. c'est ça le Sénégalais au fait parce que ça yëf loo ci wóolu ñu et on peut le comprendre euh, Bougane ndeysaan xam nga li il a des regrets mais il a eu une déception il est déçu. Hmm. pourquoi il est déçu. Ousmane Macky Sall ko Macky Sall wax ko sénégalais yépp wax Macky Sall Macky bien vrai que parce que Dès que fi bataay travaille pour l'État travaille pour Makissal roule pour Makissal et pourtant Bougan pouvait rouler pour Macky parce que Bougan il a une entreprise quand même en tant que chef d'entreprise il pouvait être avec l'État parce que l'homme a arrangé mais il a suivi Ousmane Sonko Gumko, ko gëm wax parce que dafa am nit ñu mel non dafa am nit ño amuñu xelu seytaane en fait c'est ça amuñu xelu seytaane ah àdduna di dox àdduna di dox àdduna di dox ñu ànd di di waxtaan ñu xamante lu bëri comme li ma la ci dossier aji bi ñu xam ci lu problème yi ñu xam ci lu bëri xam ci ne tey ñoom seen kaso na ci un beau matin on se réveille Ousmane sort de prison dégg muy tagg ay maamu Macky Sall attends un an en arrière le six mois en arrière le trois mois en arrière da nga diabolisé, diaboliser son excellence le président Macky Sall ba je bu 19 19 millions de sénégalais xaaj presque yëpp nee effectivement Macky Sall dafa bon. est ce que c'est le protocole de Cap Manuel qui a apporté. ça? laa leer fa laay Voilà il mhm. léegi bu ñu du protocole bi protocole, mais le fait que je mu xëy dégg Ousmane Sonko je suis nekkee ne Macky Sall nekkate ku baax la loolu bo ande Ousmane Sonko yag ande ak moom te loolu defu la kaa doo nit te teewo sa gémmiñ do nit man sama analyse laa def hein. et je pense que Bougane c'est ça qu'il n'a pas compris pas qu'il ne qu'il n'a pas digéré mais il n'a pas compris six mois en arrière yaa ngi diaboliser waa ji Bougane s'est na la nga continuer di diaboliser waa bir prison et Bougane se réveille un bon matin pour entendre Ousmane Sonko dire que Macky ku baax la mais quand même nit koo àndal ba pare waxtaanu tëgg yéen parce que dafa àndoon ak ñoom nag lu ne ñu bokk ko xeeb ko xeex ko lu ne ñu def leen ko kon boo demee sax bay def protocole Cap Manuel bay waxtaan ak son excellence le président Macky Sall bay négocier mais boole ci ñi nga àndaloon boo ko defee ñoom lu ñëw du leen bett.

Nous, du ñu ay nous, ñun politiciens yi chef de qui euh, wu média on n'est pas des on n'est pas des sénégalais hein. il faut qu'il arrête de de faire ces séparations là dafa faut ba ñu jox ko le premier ministre du Sénégal il doit se comporter comme tel Arrêtez ces bassesses Arrêtez ces garouales. on a vu ce qu'il a fait à Saint-Louis récemment le pourquoi nga dem fait qu'à merde de dëkkam. nga war a nekk un un homme d'état un diplomate gis nit loo xuloo xuloo xuloo ak nit warta feeñ ci sa warta fe wala loo dencal dencal nit ki warta feeñ ci yow boo dee homme d'état ndax maman waroon na dem waxtaan ak Mansour Faye parce que Mansour Faye bind na fépp ne teeru leen le premier ministre defal leen ko honneur yëpp yow nga dem ba foofu di ko gaaruwaale nhóm là nhỏ đó